pour ngeen dans le bain de liñuy ñuy ak gravité liñuy ñuy mais may nak ci sama qualité exposition à venir parce que dama préparé won sama ay notes mourir mourir. donc je serai obligé dire rapport bi di wax ci walu chiffre pour baña a amna yuma japp mais amna yo xamni xam war ko c'était l'objet des notes que j'avais perdu que j'ai perdu mais dina vais def un effort de restitution de toute façon euh, documentation bi prouvé li ngeen gis documentaire bu ndaw euh, partager plus cette vidéo elle-même nga xamni rush la amul logo amul la première information Sénélec ne produit que 26 euh, Sénélec ne produit que 26 de.

ay ancien DG Sénélec comme Samuel Sarr ay ancien ingénieur Sénélec wala ay conseiller à la présidence comme ni Arona Dia wala ay homme d'affaires qui xamni été banque de leen di fayal seni bor comme Khadim Ba ak ñu bari ño xamni ni mënuñu leen lim ñom ñep, ño nek ci gannaaw producteur indépendant donc information bi moy 74 du ci courant bi ñuy consommer ñun le Sénélec di jënd et mu dépensé 451 milliards 451 milliards mën na faire ay centrales centrales ça dépend du dimensionnement ou centrale parce que si on centrale bu centrale West Africa Energy bi Samuel Sarr Arona Dia Khadim Ba turc Ahmed Chalik, financé 230 milliards kon kuy fait 451 milliards par an à des producteurs indépendants mën nga faire au moins ñaari centrales yu mel noonu yu produire 300 mégawatts chacune kon lan mooy pertinence ngay louer centrale pendant 25 ans ba noppi di jox doxandéem yéeg ay cadre Sénélec ak ay ancien DG Sénélec ak ay ancien ministre de l'énergie. on ñu nek ay producteurs indépendants de courant Sénélec c'est la société nationale d'électricité rôle moi, nous fournir à la nation de l'électricité rôle tout pour jënd Jayat. Je vous donne un exemple avez un barrage Manantali am barrage hydroélectrique mais est-ce que xam un barrage hydroélectrique Manantali producteur indépendant là, Sénégal moomu ko loolu doyul courant bobu, mu ngi génnee ci njëgu 25 francs le kilowatt heure juróomi dërëm le kilowatt heure mais au lieu ñu jox ñuko dañ koy jaay Gambie 135 francs le kilowatt heure mu jur 26 milliards par an pour Sénélec donc mom mu commerce sax ci lo xamné euh, depuis jamono Senghor lañ ko xalaatoon pour régler ay problème courant au Sénégal ñëpp gis nañu champ solaire ou malikunda président Macky Sall inauguré champ solaire 22 milliards le coûté il 451 milliards de producteurs indépendants par an a une option mix énergétique énergie solaire, il énergie solaire une centrale de 22 milliards de ci par an mais centrale yoyu dañ koy signer en concession de 25 ans après nous. koy eu a a ay milliards des milliards et des milliards lañ ci fay lolu qui courant du mës wacc Sénégal day mës cher Sénégal dem leen di résumer rek après ñu dugg ci détail pourquoi du mës a Sénégal exemple bi ci gëna a moy bateau turc bi ngeen gis fi car pour ship le tout. bateau bobu depuis 2019 le Sénégal a signé contrat ak bateau bobu euh, contrat 5 ans les durer